ñii doon naa fi dégg ñuy dox say combat sa combat ak ñan lañ doon dox. waaw tout récemment rek doxoon nañ sama combat ak euh, suma juumul la mburu waay bi mu tuddati waay ma faal sëy ma faal sëy la xawma ma kii Aline Seye junior bi doon bëree ñàkk jariñu bi doon bëree ñàkk jariñu sam production mi moo nu ñun ñaar ñëpp man ma ma oowee laaka na pare na waaye ci moom daal la desoon ba léegi ba fi may wax ak yow yéeyu ci yàbbi waaw te maa ngi ko gis ci télé bi toog na fekk ay Malick Thiandoum mag di wax rek naan gars yi ñoo may daw xam nga li ñuy wax ak li am à fond bokkul waaw ñu bàyyi naxante bi tey wax dëgg te yàlla tax waaw jox nañ fi combat sama combat ak moom mënoon na kaa jël ba tey fii may wax ak yow jël ñu bëre. mais Alioune Seye est xam nga ne dafa mer parce que mu waaj combat ba ci bisub làmb ji làmb ji demee noonu yow nga toog quatre ans bëriwuloo ñu jox la Alioune Seye nga ne Alioune na bàyyi daw yu muy daw. ah kooku merul merul. <laughs> bu me bu meroon kay ban ko joxee ban ban ma ko joxee la may jël. mais ñu jox ko combat te waaye mun naa maa ngi xaar keek di xaar kële bëgg dajale mbokkaam yi nga xamante ni dee nañ tuur ay cent baadu ñooñ la bëgg a laaj ba pare. waaw xañ na ñi nekk ci biir bàmmeel bi la bëgg a laaj comme moom day dajale mbokk gi rek. waaw ar bu paree rek moon pare na li tooñ laa bu la andiloon avance bi nga jël ko tas ko séddale ko ci dëkk léegi ma tasaare ko fii ci room bi fii may toog nii. Ah. waaw jox ci ñi ma ci war a jox préparé.